Rafah TV une de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer am seen internet yu Rafah TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen bëggee di leen sant ak mbégte bi bi ngeen àndal saa su nekk di topp programme mu Rafah TV dal ci ngeen seen émission spéciale yi nga xam ne baaxoon nañ di ko amal lépp rek ngir waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan wi di dund tey nag émission bi ñu jagleel ko jafe-jafe ndox mi nga xam ne mi ngi am si dëkk bi sell bii di Touba askan wi ay semaine a ngi nii wala ay weer a ngi nii ñuy dund ñàkkum ndox mu nekk lu metti lool ñu fas yéene si ànd ak Moustapha Messere bokk si commune bu Touba yore fa bokk bokk si ñi ñi yore wàllum ba ñu war waxtaanee jafe-jafe yi lan moo ko wëndu ak yan solution la ñu mën a teg ngir askan ñu mën a tàggali kook jafe-jafe bii ñu dunge dama koy bàyyi mu nuyoo ak mbokk internet yi bu ko defee ñu yaatal maa ngi lay ziar Moustapha waaw koy jërëjëf Serigne Saliou maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu mbokki Rafah TV yëpp di commencé ci suma xarit Serigne Moutala ak mboolem personnel bi fi nekk yëpp di nuyu aussi population wu Touba jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh mun Mountakha ñaan suñu borom may ko fan wu gudd tam ànd ko wér. nuyu aussi population bi man na ma jël nuyoo bi teg ci loxo monsieur le maire Abdou Lahad mi nga xam ne mooy maire Touba di suñu kilifa nga xam ne lii ñuy def nii tey jii toog fii dañoo toog ci turam. ñu ngi nuyu bureau municipal bi ak conseil yëpp jërëjëf. Mm-hmm. jërëjëf Moustapha Sène yow bu am solo boobu xam naa dañuy jëkkante waxtu bi rek dugg directement ci sujet bi ñu war a waxtaanee tey. Mm-hmm. na ni Touba fan yi yëpp ñu ngi jàmbat ñàkkum ndox mi foo génn daanaka euh, mën nañu wax quartier yi nekk ci Touba yu ci bari jamono ji ñu ngi dund ñàkk mu ñàkkum ndox mu metti moom daan da donte sax daan na daan na am Touba wante situation bi ñu dund nii euh, mën nañu wax ne c'est la première fois daanaka ci quartier yëpp wala boog lu ci ëpp doole ci Touba amuñu ndox situation bi ñu toll nii tey lan moo ko waral waaw kay jërëjëf Serigne Saliou loolu il faut ñu leeral tuuti askanu Touba ndoxum Touba nan lay demee. parce que daf ci baax nit ñi bu ñu jàmbat fokk ñu leeral leen lan mooy ndoxum Touba ak nan lay demee. bu fekkee ci territoire du Sénégal gépp état du Sénégal moo géré ndoxum Sénégal wara fexe ba nit ñi mar du dun mar. war fexe ba nit ñi buñ feebaree faju war a fexe ba nit ñi am sécurité ak nangam bu dee Touba nag état li mu ci war a def day jox instruction ministre bi nga xam moo yore wàllu Euh, loolu muy Serigne Mbaye Thiam bu ko defee dafay dem Touba pour xool fan moo ak fan moo soxla ay forage <laughs> bu bënnee forage yi ba monté pompe yi ba pare li mu def mooy jébbal ko Maawu Rahmati Maawu Rahmati nag kuréel la goo xam ne ni sëñ mun taxaat dénkaanee dëkk bi Serigne Sidim sëñ Abdou Lahad mm. mu dénk ko monsieur le maire Abdou Lahad Ka noonu la sëñ Muntaxa dénkee ndox mi ku ñuy wax Moustapha Dieng ak Abdou Khadir Mbacke du doomam mm. kii moo yore ndox mu neex mi kii moo yore ndox mu naqar mi nga xam ne ni tubaa ce kanam amee ci turu sëñ Mountakha sëriñ bu Mbacké jiite ko noonu la ñii it jiite li nga xam mooy Maawu Rahmati ñun am ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci maire bi séeré wuñ ndoxum Touba waaye saa situation bi tollee fii ci compliqué dañuy dajalewaat ñi nga xam ne ñoo ko seq ñu génn ci gafak ak maire bi appuyé leen ànd ànd kook askan wi. loolu it bi mu amee monsieur le maire woote na réunion boo xam ne démb la woon. réunion d'urgence boo xam ne dañoo woo Maawu Rahmati woo OFOR ñi nga xam ne ñooy tubaa ca kanam ñëpp ñu seq ko ak maire bi bi ñu ñëwee li monsieur le maire njëkk a wax ñi nga xam ne ay représentant lañ parce que Maaw Rahmati bi ñu wootee ñi ko jiite ñëwuñu Moustapha Dieng ñëwut Abdou Khadir Mbacke ñëwut d'ailleurs Abdou Khadir Mbacke sax yebalu fa représentant ko ko fa teewal. te ñoom lañ dénk ndox mi fi ñoom lañ dénk ndox mi donte Moustapha Dieng sax yebal na fa ko ko fa teewal. mais dama gëm ne buñ soxla li nga xam ne mooy solution daar daar ñoom dañoo war a génn ñëw. Ah mhm. parce que ñi ñu fa yebal it monsieur le maire ki njëkk a wax mu laaj ko ku la fi yebal mu ne ko offort daf ko wax ne ko mënuma wax ak koo xam ne day bind di yóbbu ki ma mhm. war a waxal mooy ki nga xam ne mën naa jël décision fii ñu toog ne ndoxum Touba lii mooy solution nañ jël solution daar daar mhm. finalement femme boobu dafa mujj dem bi ñu demee ba war a tëj kii bi it Bamba ñëw na ci côté ay vingt et une heures vingt heures vingt et vingt et une heures mhm. waaye li ñu tijjee débat bi rek dañu posé question ki nga xam ne moom la fa Moustapha Dieng yebaloon lan mooy situation bi ba tax Touba am problème ndox ñu ne ñeenti forage daf fe nekk yoo xam ne bokk na ci forage yi gën a mag ci dëkk bi dañoo am problème mu pompe ak yeneen neuf forage yoo xam ne amuñu problème mu pompe mais puissance bi ñu amoon dafa wàññeeku c'est-à-dire que mi ngi mel ne ki doon jox fukk dem na ba fukk yim la doon jox non seulement mënu laa jox sax juróom léegi nag nee nañ neuf yooyu loolu mooy seen problème ñeent forage yi taxaw moom nga xam ne bokk na ci liy màndal lu bari ci biir centre ville beeg yooyu euh, yooyu la ñu wax ne dafa am problème mu pompe Touba ca kanam toog mairie toog ñëpp toog ñu ne leen nag yéen ñi nga xam ne ay def ñaari kees benn bi mooy ndox mu naqari mi ay fayoo ko banque yi yéenay fayoo ko boulangerie yi ay fayoo ko laawaas yi yéenay fayoo ko station yi yéenay fayoo ko autorisation yi kon loolu xaalis bu askan wi du contribuer la nga di leen jaay askan woowu nag boo leen di jaay ñuy jënd war ngaa mën a fexe ba saytu li nga leen di jaay daa war a doy dafa war a baax dafa war a set la ñett yi maaw raxmati ñoo ko amal population wu Touba. ndox bi du ndox mu neex mi boobu la Abdou Khadir Mbacke yor ñu gis ne forage yëpp sénégalais yi ak dëkk bi ñu ngi sant ne forage yi dañuy paan mais benn forage nekk fi buy nandal dëkk bépp te musta paan wala boog bu paane it askan wi du yëg ne forage bi dafa paan parce que mbànd bu bula balaa boo romb ci dëkk bi ñoo koy root seetar na ndox boo romb ci dëkk bi ñoo koy root mhm. biteelu ndox bi lay fëgg sa kër nga di ko jënd ñaari danse nekk ci xamoo ki koy jaay kan la day solu mbubb rek ñëw taxaw ci sa kanam sotti la bitel boo xam ne non seulement seggu gam koy segg xamoo fan la jógee ñu jaay la ko ci risque boo xam ne mënoo ko ñàkk naan parce que loolu doog moo sës ñu la koy jaay ci situation bu compliquée mais nag pare nag cher parce que bitelu ndox yegg nañ ci di ko jaayee deux cent francs mhm. imaginé deux cent borom kër gu xëy war a naan ñeenti butéeli ndox kooku am contrôle ci sa kër moo koy gën mhm. léegi nag bi situation demee fan monsieur le maire posé leen question ne leen dajale xaalis mairie bi yorut mairie ndoxum tubaa bu situation bi tollee fii nag war na cee jàpp yéen lan ngeen yore pour ñu jàppale leen. pour ñu jàppale leen. Touba ca kanam posé leen question boobu. ne leen comme ñun kuréel gi dañ ko ràbboon sëñ Mountakha dugal ci Touba ci kanam sëñ abi bu doonoon di njiitu tubaa ci kanam ñoom ñu duggoon ci. mais li leen tax a taxaw ci liñ souligné ci réunion bi mooy relation bi war a dox seen maa Maawu Rahmati dafa des te Maawu Rahmati bëgguñu kenn ku nànd système bi ñu doxee. parce que dañ leen ne bañu ñu pompe kanam jënd. waaye liñ bëgg bu ngeen di monter pompe suñu personnel assisté bi ngeen di monter pompe bu ngeen wekkee bi ngeen wekki ngeen jox ñu ko ñu denc. parce que war nañoo rendre compte askan wi xaalisu askan la yor war nañ leen la kat bi ñu jëlee ñaar téeméer jënd ci kat sensé nangam liñ sensé ngi nii. ñu di ko topp loolu mënta nekk problème boobu déjà moo am ak mairie bi mairie bi jën na cinq pompes yoo xam ne dañ ko sensé ci biir euh, Maaw Rahmati ba fii may wax yow benn boo xam ne PS bu yàqu la ñu ne lii moo fi nangam. man nag loolooy sama jafe que en général à chaque fois bu Touba manqué ndox rek li ñuy wax mooy pompe yi moo paan moo paan euh, ñoom ñoo xamul ci li xam nga pompe yi dafa am lu ci nekk bu fekkee sax dañ naan la pompe moo paan nga sensé pompe ñu jox la bi yàqu mën ngaa gëm ne pomp moo waaye du mairie moo gis pompe du Touba ca kanam moo gis pompe du kenn moo gis pompe dañuy tëb ne la pompe pante boo saasee non seulement bi nga saase muy bekk doo ko gis doo ko teg bët armoire électrique léeg-léeg ñu la forage sàngam armoire électrique bu moo lakk te armoire électrique ñi nga xam ne ay technicien lañ mhm. ay disjoncteur lay doon ay modulaire lay doon mhm. ay ay ay ay ay ay relais lay doon moom la ñu daje ci benn kees monté ko mu nekk appareil muy détecté automatique bi ak nangam loolu yaakaar naa du lépp moo mën a maasandoo lakk bu fekkee modulaire moo ci lakk wala benn relais moo ci lakk da ngay wekki sensé mhm. démb maire bi neen leen man yegg naa ci ne leen bu ngeen ma indilee yi yàqu mhm. am naa technicien bu ko mën a réparer di leen ko monte la kon indil leen ma li ngeen di sensé bu ñu demee bu mënta baax ma jënd bu bees jox leen loolu déjà it problème la mu am benn lobby bu ci nekk boo xam ne nag li nit ñi war a xam mooy amut benn dërëm buy jógee ci maawu raxmati jëm si ci mairie bi. ah bon amut benn dërëm buy jóge ci maawu raxmati dem ci état. amut benn dërëm buy jóge ci ci sëñ Muntaxa te ñoom ñoo seera ndoxum Tuubaa ñooy jaay te fii may waxe yow ni paan te ñoom bu ñu bu ñu paanee dañuy woote ndimbal ñu dimbali leen moom laa lay wax dama nii wax ak yow nii rek paan nañ nii nii nii mënuñoo jënd pompe parce que bi ñu posé question loo Pablo mi nga xam ne ci technicien la moo fa représenté Moustapha Dieng mhm. monsieur dana ko yéen ñi féete ci côté Moustapha Dieng da ngeen di wax lan ngeen man ndax man ngeen a jënd pompe ñu ne ñoom mënuñoo jënd pomp ndax yoruñu xaalis <laughs> léegi nag mairie bi mooy jëlaat ci xaalisu dëkk bi. après obligé nag jëndalaat leen pomp te bu ñu demee bay jaay di def chiffre d'affaires. après mairie bi du ci am benn dërëm boo xam ne sax mën nañ ne lii ci maaw rahmati la jóge ñëw te xam nga état fu muy def xaalisam rek mooy fa muy gañe daal. mooy fa muy gañe daal. boo demee Mbàkke Bawol ndox ma état li tax bi waa Mbàkke ne ñoom amuñu ndox mu neex def xeex. état ñëw defal leen forage fexe ban am ndox mu neex mu doy mhm. mooy am na lu may gagné ci am na lu muy gagné ci dëkk ba ndoxum Touba nag état daf ci gagnéwul dara non seulement mooy bënn forage mooy fay courant bi mais gagnéwu ci dara mhm. mais est-ce que waa euh, Maaw bi ñu nekkee ci réunion bi ñoom amuñu lu ñu jëndee ay pompe amuñu lu ñu réparé ci forage yooyu noonu mais koppar bi nga xam ne xaalis bi nga xam ne dinañ ko jaayee ndox mi di ko laaj nañ leen fan lañ ko dugal ak maanaam loolu nag daanaka mooy aw saaga ci dëkk bi boo ko waxee sax dañ lay yóbbu foo xam ne daanaka wax ji da koo jërul ndax saa boo posé question ne xaalis bi fi mu dugg rek problème am saa boo ko laajee rek problème am man mi nga xam ne démb laaj naa ko daanaka tuuti réunion bi yàqu mooy xaalis bi ngeen di laaj ndax ñeent laaj a am bii da ngay laaj nit ñi ñuy contribuer. ah waaw jumaa ji forum fi gis. ni moom la mooy li ñu naan murit bu ko romb jàddal <laughs> barke ak nga xam ne ay kilifa lañ di ci dugal seen loxo. Eh. ak li nga xam ne da koy jënd ak li xalif seen daal di murit di contribuer. Eh. ci jamono yële ci ginnaaw rek lu yàggul dara ñoom dem nañ ci mun Muntaxa ñaari kilifa yi seq ndox mi. Mm-hmm. jàmbat njàmbat lu bari ci aw këyit ne dañoo soxla personnel dañoo soxla oto dañoo soxla nangam dañoo soxla nangam ndax maire bi woote nañ bitite waxoon ne danañ ci def cent millions ci ndox mi mais non seulement mujj ñu ko ci def. sëñ Mountakha ci li muy lim li mu yéene dëkk bi ak li nga xam mooy priorité. Mhm. mu jox leen quarante million ñoom waa Maaw ñoom waa ñaari kilifa yi seq ndox mi. 40 million yooyu ñi seq ndox mi sax xamuñu ko sëñ ab sëñ euh, kii Mbacke sëñ euh, kii sëñ Ousmane Mbacke mi nga xam moom la leen sëñ Mountakha boole loon mhm. wala Moussa le maire Abdou Lahad Ka mhm. wala sëñ Abibou Touba ci kanam mhm. kenn yëgu ci loolu kenn yëgu ci 40 millions kenn yëgu ci 40 millions bi ñu ko nag ñoom li leen war a posé question lu tax sëñ Abibou Touba ci kanam waa Touba ci kanam ne tekk réclé ne mënatuñoo ànd ak ñoom ci façon bii ak Touba ci kanam doxin wi ñu doon doxe ci ndox mi mu gaaw fast track bi ñu doon def solution bi ñu doon indi lan moo tax sëñ Ousmane Mbacke bàyyi taxaw kilifa yi ñu leen di booleel ku ci xëy ñaari weer ñett taxaw ñaari nit képp doon installé benn lobby boo xamante ne bi dëkk bi mënuñoo naax naan mais non seulement ñi ngi dund ci seenu ñaq te kenn mënut a wax effectivement parce que bu njëkk da nga daan dégg ñu naan Touba duñ fay ndox effectivement ñi ngi fay ndox mm. parce que ki yore laawaas yaa ngi fay ah ki yore station yaa ngi fay ah banque yi dañuy fay ah boulangerie yi dañuy fay kii xëcc teewoo parce que man dem naa Sébé yaawoo mm-hmm. seen autorisation yi bari foofu lañ ko jaarale. nee na ñoom li ñu recevoir ci ay autorisation xaalis bi kenn xamut nu mu. kenn xamut nu mu te ñoom xaalis boobu tey jii bu ne leen woon tey jii forage sàngam paan na kaay nga defar forage bi amuñu doole juñ ko defee. amuñu doole dama jàpp ne bu fekkee da jaay. Mm-hmm. xanaa loo mën a mën a yàq moom boo amul bénéfice nday ja da nga ko fa téye ah war ngaa mën a fexe ba forage yi nga yore comme laaj ñu la benn dërëm sëñ Muntaxa néew leen andi leen retour état laaju leen ko mairie laaju leen ko Touba ci kanam laaju leen ko même bu fekkee sax dañuy dund ci kuréel ndax loolu am ci dëkk bi kuréel goo gis rek ña ca nekk ña ngi cay jariñu ña ngi ciy jariñu waaye xanaa war nañoo mën a sàmm lañ leen dénk ba nga xam du yàq wala wala sax ñuy leeral que ni xaalis bi fii lañ koy dugal non leeral moom du am ndax ci at yi ñu romb fii yaakaar naa ci wàllu image ngeen di yëngu amul benn image bu ngeen am ci juróomi at yi depuis 2019 ba nëgëni mhm. bu ngeen mas a taxaw ba maaw raxmati immigré forage ci dëkk bi ñoom sax kay li gën a jafe pour ñoom nga gis leen ci plateau yi sax waaw ne la amul benn a génne bu ñuy def addition d'eau soit ñu taxaw tey jii dañoo bëgg a wax ak population Touba leeral mais léegi nag Moussa est-ce que jotul nag ñu taxaw seetlu ñi leen dénk ndox mi nag ñu dem ba sa ñoom ñu yegg leen jafe-jafe bi waaw xam nga xam nga yeggee jafe bi sëñ Muntaxa xam na li nekk ci ndox mi ah bon xam na li nekk ci ndox mi ndax ñu bari dem nañ yóbbul ko njàmbatul ndox mi waaye fi mu ne boo demoon tey ne sëñ bi dëkk bi amul ndox am na yeneen lobby yu installé waat ñooy dem ne ko dëkk bi am na ndox. lobby yooyu nag la war a fexee jëlee ci kanam. lobby yooyu nag lenn moo leen fi mën a jëlee man damaa gëm ne ndoxum Touba man ci sama xalaat dafa war a dem ci loxob état Sénégal gépp fi état yore ndox mi amuñu problème ndox te gis naa ne dëkk bi li ñu daj ci ndox parce que ñoom ki yore nekk offort bamba bi ñu demee ba mu ñëw proposé ne na nañu wut ay citerne dem maye ji ndox xam nga citerne maye ndox lu ñu ca teg. nit ku ne boo soxlaa ndox foo mën a dëkk ci Touba da ngay joxe quinze mille cent franc mooy vingt litres gasoil kon xam nga ne ki yorut xaalis bokku ci ndox mi parce que ki nga xam ne góorgóorlu la war a yore ñaar téeméer wala ñett téeméer yu mu nga ne ko indi 15000 cent francs pour ma ñëw indi la ndox kooku bokku ci ndox mi ah waaw parce que xam nga liy problème ñoom Touba ca kanam ñi ngi maye ndox génne nañ seen cinq sept na di maye ndox gratuit nga xam ne ñooy def seen carburant boo nee 37 forage moo nekk ci Touba 37 forage moo fi nekk ci biir Touba. benn forage mooy naanal dëkk bépp mooy bi yor ndox mu neex. mooy bi yor te du paan boobu moom du paan du manqué. léegi nag li ci des lépp di problème bu ndox. dëkk bépp maase di jàmbat. man bi may ñëw sama oto dama ko raxas fii ci 28. Eh. boo demee Kër Sëñ Muntaxa gi mu jàkkaarloo amul ndox. Eh. laawaas yi moom am nañ ndox ndax ñi ngi fay. ñun wax ak yow rek amuñu ndox. waaw ngi jege jumaa ji yaa ngi nii fi mu ne jàkkaarloog jumaa ji te amoo ndox. Ah fii may waxee boo demee ci 28 bi raxas sa oto. Eh. lu tax laawaas yi moom amuñu problème ndox lu tax boulangerie yi amuñu problème ndox lu tax estation yi amuñu problème ndox parce que ñoom ñi ngi fay askan wi contribué wut fayuñu nag ñoom lañ xaj ndox ba pare ne forage yi daa paan parce que dama gëm ne ki nga xam ne da lay yendoo tuur ndox émission laa bi xëy 8h. wàcc 19h. 8h mm-hmm. ba 19h nga koy tuurum ndox. huit ba dix neuf nga koy tuuram ndox te askan wi amuñu ndox mu ñu naan mhm. amuñu ndox mu ñu sangoo amuñu ndox mu ñu togge mhm. yow ngay dem di fayee ko kooko di tuur ndox te ki nga xam ne day sangoo ko naan ko togg amoo ko jox boo ko jox amoo ko ci amoo ko ci c'est que li problème bi ñi nga xam ne ay kuréel lañ te dëkk bi tax leen a jóg am na sax ñu fi créé bu yàggut 28 marabu doon wax ci problème mu manifestation yeeg yu bari solution bii ci ndox mi dañ ko war a wax offort bi nga xam ne état ko indi li mu waxee d'accord naa mooy ñoom li ñu leen sant muy seen prérogative ñoom jënduñu ay pompe li ñu war a def mooy tabax forage ba mu yegg bënn ko monte ko jébbal maawu raxmati maawu raxmati may seere forage boobu di jaay ak jënd nag bu paanee moo war a jënd pompe moo war a jënd te effectivement loolu mu waxee dama koy d'accord parce que benn dëkk booy dem Sénégal ndox ma génn dëkk génn état dem ci dëkk bu amul bu du Touba pourtant askan Touba nag ñu bari nee nañu état ak maire jafe-jafe ndox mi ñoom ñoo ko waral waaw xam nga ñi xamul waaye xam nga maire bi ni ñu ko dénkaane noonu la ñu dénkaane ndox mi fi mu ne monsieur le maire sañu ta wax Moustapha Dieng dara parce que ko dénk dëkk bi moo dénk Moustapha ndox mi ki dénk keneen moo dénk keneen hmm. cest dire que dëkk bi amul kenn nit kan dénk responsabilité boobu nag bu demee ba nga xam ne law na ci Touba gépp ñu dund am njàmbat nit ñi dañoo war a assumer seen responsable taxaw wax ko bi mu jugee mu nekk ci hmm. ay bokkam ak ñu bari di ko xeex ci wàll ndox mi dafa am honneur dem jébbal jébbale ay lengem ne mënatuma dem ñu jël Moustapha Dieng jox ko jël Abdou Khadim ak am nawleem jox ko ñoo ñu suñ demee ba askan wi li ëpp ci ña doon jàmbat sëñ Cheikh Aliou ñu ngi am problème nga xool lu mat fukki village ak nangam ci biir dëkk bi amuñu ndox ñu jëm ci ak koor encore naaj wi ni mu tàngee jigéen ñi war a rooti am ñoo xam ne bu ñu wàccee seen problème léegi 5 heures la wàcc li des ci temps bi ba guddi yëpp am rootaan lay doon bu yëf yu tollee foofu te señ bi mi ngi ciy dugal alalam. Mm-hmm. plus de 40 millions doo ay caaxaan. Mm-hmm. effectivement def 40 millions lu ma 2 mois 3 mois nga jàmbataat ko njàmbat doo xam li ëpp ci dëkk bi maa ngi dox ba kërug boppam di maa ngi dox. di maa ngi dox léegi li war a def. Mm-hmm. du problème nañ jënd ñaari pompe ñetti pompe dañoo war a teg ndox mi ci taabal. ñu bàyyi ko ñoom bu ñu tegee ndox mi ci taabal ji waxtaanee ko ñaata la ndox mi di dugal ci xaalis. ñaata forage fi nekk ñaata la ñu dugal def recensement ñaata station fi nekk ñaata laawaasa fi nekk ñaata boulangerie fi nekk ñaata banque fi nekk ñaata mooy dugg ci kees gi pour autorisation vingt cinq mille yi xaalis boobu boo ko dajalee non seulement jàpp naa ne courant sax war na ko mën a fay ah ah mais nga dajale loolu pare bu facture ñëwee état fayal la courant bi maire di la jox carburant carburant bi yëpp maire bi ko jox de mooy forage yi nga xam ne fa mu nekk amul ndox amul courant maire bi moo joxe carburant bi jënd baterie ya di fay ñenn ci personnel bi nga xam ne ñooy conducteur du forage yi. Mhm. léegi équipe boobu fekkee te loolu yépp dañ koy yoreel benn entreprise. yow sa entreprise daal leen doo nga def bu pare fayal salaire ñi ci bokk li ci des demal nga dund. Mhm. néewuñu la carrément weer bu dee wala at mi bu dee bënnal bii forage manoon nañ ne kat maa wu raxmati buy jaay ba at mi jàll. wala ñu jub màggalu Touba chaque màggalu Touba ñu ne ñu forage bi maa war a xamante ko bënn léegi maam moom lan mooy lan mooy taxawaayam moom jaayam ndox kese la fi nekkee wala comme comme li nga wax fii lépp lépp ci ay kii maanaam jubluwaayu maawu raxmat du jaayam ndox du jëndum ndox xam nga lu doonoon seen liggéey fatti bën bën ca nekkub sëñ Saliou ba mu jox ndigal sëñ si Aliou fatti bën bën ndax booba tew yi fii te bari na nit ñaa ngi yàq ndox mi te sëñ bee ko daan fay ñu dem ba forage bi machine bi ñëw fii ñu ñu may ko sëñ Saliou sëñ Sidi Mokhtar mii bi mu fi ñëwee def ci 80 millions ci machine boobu mooy coow li amoon diggante sëñ Cheikh Aliou ak ak ak Amary bi ñu ko fayee ba pare nag léegi ñu réceptionné ko sëñ Mountakha moo ko réceptionné ci kër sëñ Touba gi ci Daaru Manaan mhm. bi nu tegee machine bi li mu waroon a def mooy hôpital yi di am ndox mu neex te duñ ko fay parce que problème mu xool nañ ne ndoxu xorom mi bari na ci dëkk bi loo xam mi ngi koy indi ci ay jàngoor nit ñaa ngi koy dund ñu ne hôpital yi ci dëkk bi yëpp dañoo war a am ndox mu neex te duñ ko fay hôpital bu ciy naan liitarum ndox te fayoo ko amul ci Touba nga xam ne da ngay dem hôpital boo xam ne waxuma la naan liitarum ndox waaye ndoxum xorom ma ca hôpital ba sax ko mhm. yaa ngi dégg ay vidéo ñu naan boo demee ca barab ya amuñ ndox wala nangam a nangam loolu jàpp naa li ñu war a def mooy wut benn commission boo xam ne ñooy saytul seen bopp forage yi ci biir dëkk bi def recensement ñaata forage la wut équipe bu fa nekk di contrôler ndax pompe yi naan yàqu na yàqu na wala yàquwul ndax bu ñu ne yàqu na ba ban wekk ko dañ koy sàcc yóbbu waa wala déet lan mooy tëj forage yi wan yi ni wax lu koy tëj ak tewa yi ñuy saboté ak tewa yi nga xam dañ koy saboté lan moo ko indi ndax norme yi ñu war a wax ci ab forage nit ki nekk fa ma ngi koy sàmmante wala déet quartier bu ci nekk teg ab commission saytul seen bopp seen ndox liggéey boobu nag ñen ñoo ko war a def loolu nga wax ni dañ ko war a def loolu mi ngi mën a bàyyeekoo rek ci commission boo xam ne ci ndigalu xalifa bi rek la mën a jógee yilifu ko de mais laat ka war na mën a dem ci sëñ bi wax ko jafe-jafe bien sûr loolu dem ci sëñ bi moom du laat ka dong ndax am na doomi sëñ bi wala ñu jege sëñ bi ñoo xam ne ñu ngi ci maire bi ñu def euh, kii bi réunion bi mhm. sëñ Mourtala ma nga fa woon con adjoint au maire la mhm. euh, Alaaji Njaay programme maa nga fa woon adjoint au maire la sëñ Issa Mbàkke bu sëñ Moustapha Bassirou mhm. doom ci sëñ Muntaxa maa nga fa woon adjoint au maire la sëriñ Moustapha musa bokk ci membre sax maawu rahmati ma nga fa woon ak ñu bëree bëri ak ñun ñi di ay conseil municipal ñun ñoo convoqué woon réunion bi pour waxtaan solution daar daar ci biir ndox mi ak waa Touba ci kanam ofor ak maawu rahmati benn maawu rahmati bu moom ñëw na même bu ñëwul it am na fa représentant muy Moustapha Dieng beneen maawu rahmati bi jaay ndox mu neex mi ñëwut amu fa représentant kon kooku dafay mel ne ndox mu neex mi bu leen ñoroon wala jëmmi ndoxum Touba ñor leen bu maire bi wootee ki jiite ndox mu neex mi day toog mhm. ki jiita ndox mu naqar mi toog Touba ca kanam toog maire bi toog ñooñu rek ko mën a seex parce que décision yi foofu la mën a jóge ah, jamono jëlee askan yu sonn nañ daanaka la tant ñuy xaar ndaje yooyu <laughs> askan moom daañu dee ci ay ci ay root fi mu nii lan mooy solution bi ñu war a def daar daar jamono jëlee ba askan yi au moins sax ñu mën a am lu ñu toggee ak lu ñu naan maanaam solution daar daar bi daal li nga xam ne man gis naa mu mu commencé Touba ca kanam départ nañ seen i oto di maye gratuit effectivement mairie bi taal seen i oto def carburant di maye gratuit mhm. offort nee jëmmi maaw raxmati moom amagun benn dispositif buñ teg ci taabal ji boo xam ne moom mën nañ ne ñoom saafara mën nañ ko indi lu dul buñ indee pompe ñu monte ko ay technicien lañ bëgg a taxawee tey bu forage yu baaxee ñu doon ay commerçant tey nii moom ay technicien lañ bëgg a taxaw mooy lu ngeen indi ci ay matériel danañ ko monter bu demee ba forage yu normal nag ay commerçant la ñu doon. ay commerçant ñu doon ay jënd ko jaay. lu doy waar la daanaka li ñu bëgg a waxtaan ci ndox mi yëpp xaajut sax si ay waxtaan yi nii en tout cas euh, li des si waxtu yi bariwut. daanaka mhm. dañuy tëyee rek euh, ci dernière question bi mooy yan solution la ñu rate wax nga daar daar gi muy génne ci camion yi may mbokki taalibe yi ndox mi. Mhm. mais bu buñ ci jugee nag wala ci biir ñu waxtaan lu ñu war a def nag ba encadrer ndox mi ba jafe yu mel nii dootuñu ko doon datee. solution daar daar bi mooy. dem ci sëñ Muntaxa maawu rahmat loxo yi mu nekk baaxut te ñu ëpp ci dëkk bi mënuñoo jàmbat. ñoom nag lool la ñu bañ a dégg. waaw loxo yi mu nekk baaxut te li ëpp ci dëkk bi ñemewuñoo jàmbat. parce que xam nga dëkk bi ni mu bindoo daanaka kuréel yu ci bari nit ñi dañ cee dund dund goo xam ne seen bakkan lañ ci teg. effectivement démb kii représenté woon maawu rahmat li tax mu yéex a ñëw procès la am ak Mourtala Gueye bu reete ci affaire diffamé nee nga ma yaa sàcc teew bi ak sàccu teew bi yu ñàkk fere yooyu. ñoom àgg nañ sax boo waxee ñu. day boo waxee ñu porte la foo xam ne da ngay gis bu installé wu ci dëkk boo xam seen bakkan lañ ci teg. mel ngir dundee dëkk bi pas ñuy dundal dëkk bi. parce que li ma gëm mooy bu dee ndoxum Touba ñu bari nee nañ duñ fayum ndox ba loolu lañ dëkkal ci nopp nit ñi nga fexe ba doonu commerçant ci biir ndox mi leen jaay mais leen di jaay na baax amuñu problème mu jënd. effectivement ki nga ne day xëyee këram amut mu jënd solution bi daar daar mooy loxo yim nekk baaxut te askan yëpp maasa nañ xam ne loxo yim nekk baaxut. du maire moo ko yilif du Touba ci kanam ko yilif du kenn moo ko yilif ku dul Abdou Khadir Mbacké ak Moustapha Dieng ñooy première responsabilité ndoxum Touba. da nga bëgg daal du état it moo ko yilif. yow daal sa xalaat li koy saafara mooy ñu génn leen. ñoom dañ leen war a génn définitivement andi ñeneen ñoo xam ne dëkk bee leen tax a jóg soit ñu jël ndox mi jébbal ko état. mais bu boobaa état bu boobaa bu ñu defalee contour man ma xam ne courant maa ngi koy fay. loolu ci sama loos xam ne crédit bu ma ko jëndee dama ko bu ma ko amee dama koy jënd ma ci li a fay mais fayum a dégg mi ngi a a waaw xam nga loolu it dëkk war nañoo génn foofu nag effectivement bu sëñ bi doon jël laajde guerre bi ñëw centaine de milliards la ciy def mu ñëw ci dëkk bi effectivement xaalis a koy def xaalis boo dëkkee ci ne du fay ndox yaa ngi def leneen lu bokkul ak fay ndox te loolu la nga koy def force lay doon dañ ko gàll ci sa loos te mënoo ko bañ jàpp naa dëkk bi nag bi ñu naan du fay ndox fa Touba tolloon la ñaari forage ñetti forage kooku sëñ bi mën na ko fay attan na ko waaye 37 forage ci ab dëkk ku ko mën a yéene na sëñ bi moo ko war a fay ñun dañu aj suñu loxo nga doon commerçant di liggéey di am xaalis di tabax di investir feneen di dem nangam lànk ne doo fay hmm. commencé ab fondation mu dem quatrième étage R plus 4 wala 5 nga tabax ba pare toq ndox fayoo ko ci ndox moom loolu erreur mënu ko weesu. nga gis tey jii boo jaaree ci télé bi tuyau yi fii te tey jaar ci télé bii rogalaat loolu bu ñu ko gàllee génn kilifa ne moom moo koy fay rek aj suñuy loxo loolu erreur mënu ko weesu. Touba dañoo toll ci fay ndox ba pare am ndox moom neex. ndox mu baax mu set mu sel <laughs> waxtu bi daanaka jeex na ana kay li ma siy bërëxal rek mooy pataaralu kilifa yi fi nekk nag ñi nga xam ne dañoo jàpp ni bu ñu jaaxlee si ñoom lañu ñu war a dem tubaab manqué ndox jamono ji la ñu ne patt kenn wax. waaw xam nga da ci am yenn kilifa yoo xam pataaru luñ de wax ci ndox mi leen arrangé wut ngi ciy wax. ndox mi moom da cee ñooñu log nañ ci lool duñ ci wax ba àdduna tukki duñ ci wax. pourquoi loolu xam nañ ko moom. ba ñu wal buftu ba duñ wax ci ndox mi. pourquoi nii dëkk bi mare nii yëf yi ne tekk jaaxasoo salfaañoo da leen arrangé. li leen arrangé wut moom ñu ngi ciy wax waaye nii moom baax na ci ñoom. <laughs> maa ngi lay gërëm Moustapha di la baax nga tàggatoo ak askan jërëjëf maa ngi nuyu waa Rafah TV comme ni ma ko ubbee woon nuyu sëñ Mourtala. Mm-hmm. di la nuyu yow sëñ saaliw ak personnel bi fi nekk yëpp. Mm-hmm. di ñaan yàlla barab bi suñ boroom yëkkati ko mu bokk ci barab yi gën a taxaw ci àdduna bi. Mm-hmm. ndax waxtu wu yëf yu tollee fii kat gis naa ne bu dul man. dangeen fi dalal borom xam-xam yoo xam danañ fi mën a waxtaanee ak dëkk bi. loo xam ne njariñul dëkk bi la. lool dañ ko fiy seetlu ci jataay yu baree bari. Mhm. ñu ñaan yàlla suñu borom mu doon ko yaatal mu dem ci TNT beeg Canal Plus beeg mu dem fépp foo xam ne ñu dañ koy soxla ñu ko bàyyi xel. jërë ngeen jëf jaajëf jaajëf Moustapha yow tamit ñu lay gërëm parce que heure buñ la soxlaa rek sa disponibilité da ñëw bàyyi li nga doon def yépp ànd ak ñun ci waxtaan yi ñu lay jaajëfal baax a baax di jaajëfal mboolem koo xam ne jàpp na ci waxtaan bi ba mu yemm di leen sant yéen suñu bokk internet yi nga xam ne ngeen doon bàyyi xel Rafah TV jaa ngeen jëf ci topp gi ak may nopp gi ci beneen yoon incha allah